Euh, am nañ tamit benn euh, message wala benn information tam bu ñuy jàllale euh, ci déglu bi ñu doon déglu capitaine Touré ñu ne am na juróom-ñetti instance yoo xam ne dox na ci diggante Ousmane Sonko ak capitaine Touré luy prouvé ne ñoom ñaar amoon nañ ay liaison maanaam amoon na contrairement li nga xam ne la enquêteur yi wax ci souligné ne benn message rek mo dox sen digënté muy convoqué bi doon convoqué Ousmane Sonko waaye amna juroom ñetti SMS parce que lu ko ëpp lo xam day prouvé ne Ousmane Sonko ak euh, ki di capitaine Touré doon naan essencé ay message vendredi le 5 février 2021 capitaine Touré ak Ousmane Sonko numéro capitaine Touré mi ngi commencé 77 jeexee 4 numéro Ousmane Sonko tàmbalee won 76 jeexee 9 message yi nga capitaine Touré envoyé 18h57 49 secondes 18h58 2 secondes 18h58 30e euh, seconde 18h59 minutes voilà ak 20h24 minutes 20h26 minutes di ay message capitaine Touré envoyé nako Ousmane Sonko Ousmane Sonko comme ni leen ko waxee numéro téléphone am commencé woon 76 jexé 9 euh momit euh, ñaari SMS yo xamné envoyé nako euh, ki di capitaine Touré benn bi 20 h 22 minutes 35 euh, secondes ak 20 h 26 minutes 35 secondes encore lolou moy essentiellement yi nga xamné dox na ci diggante. Euh, Ousmane Sonko ak ki nga xam mom moom capitaine Touré euh mi ngi xew vendredi 2 fan ci de février 2021. Audio Jungle